boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk jullit yi mbokk taalib yi ñuy bàyyi xel fii ci seen télévision Istiqama TV kàddu gaa ngi bàyyi ko fii ci pencum Paaleen ci kër Serigne Cheikh Fall Mbawor ibnu Serigne Aliou Fall Mbawor xam ngeen tey jii la altine ñu fas yéene àndat ak bokki taalib yi ngir yóbbu addee ji nga xam ne Serigne Cheikh Fall Mbawor xalifa Serigne Aliou Fall baaxoo na ko amal ci weeru tabaski wu nekk. mu ànd ak bokki taalibe yi dajale leneen ci ay xarit tabaski yëtti ko ki fi nekkal Serigne Touba Xaadimu Rasuul mbokki loolu nag la Serigne Cheikh Fall Mbawar defaat tax tey jii ñu des waat àndaat ko seen télévision Istikhama ci wàllu caméra nag ñu ngi ci ànd ak Serigne kon xam naa dañuy ànd ak rek ngeen xool xar ni ñu leen dajale bu ñu noppee nag noo ànd ak jëwriñ yi Serigne Mame Cheikh noo ngi koy ñaanal baax mu yàgg fi tànn ak wér waaye Serigne Moustapha Fall jëwriñ ak mboolem seen rak ñu bokkal Serigne Cheikh Fall Mbawar waaye mboolem taalibe yi gunge ko nag jébbali ko Serigne Touba Cheikh Mahamadou Mountakha mbokki kon dig daje ci kanam tuuti ak Serigne Abdou Bakhy Dia Mor Talla fii ci pencum Paalin kër Serigne Cheikh Fall Mbawor la ilaha illallah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 ngeen jëf mbokk yi ni bàyyi xel kon ñi ngi fii ci pencum Paleen kër Serigne Cheikh Fall Mbawor ibnu Serigne Aliou Fall Mbawor ci bis bi nga xam ne ci lay yóbbu xarit tabaski ni ngeen ko déggee léegi jëwriñ ji ñu taxawal nag di kenn ci njabootu Serigne Cheikh Fall Mbawor waaye xam ngeen ne bu ñu tuddee jaayante bi li tax nga xam ne yoonu murit yoonu ndigal la ñoom ñi nga xam ne dañ leen di tudd tudd Serigne Cheikh Fall Mbawor kenn du leen ci man léegi nii rek moom maam Cheikh mi mi ngi doon jébbale ab liggéeyam Serigne bi Fall gannaaw bu ñu la nuyoo siyaar la dañ lay bàyyee gi rek nga dikk am ñun ci murit ndigal baat boobu daal bëggoon nañ ci barkeel tuuti maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf euh, Cheikh bi noo ngi lay ziar lu bëri ñuy nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan ak mboolem ñi nga xam ne it ñoo ngi ñuy dégg moo am mbégte bu baax ci jotaay bi nga xam ne tey amal nañ ko ci pencum Touba Fall ñu gën koo xam ci Touba euh, muy waajalu liggéey jëmee ko ci kër Serigne Touba. Xaadimu Rasul mhm. ne murit ndigal nag. Mhm. Euh, sëriñ bi ndigal bi ñu ko tànnee ci biir kër sëriñ Touba dafay mel ne bu doon saxaar ak ay wagon bopp ba mooy Cheikh Ibrahima Fall Babu Murid boo xoolee xasida gi muy wax sifaatu sadixal murid ixtiyaar googu mhm. sëriñ bi tënk arbaatum nasamtuhu nga xam ne daf ko wa tënk ci ñeenti ponk mhm. bokk na ci fu sa ndigalal kilifa rote jëfe ko ni mu ko bëggee tey du laaj ab luñutu akub laaj loolu mooy li nga xam ne moom dajale tey ci jëfe ndigal loo xam ne dañ ko doon ci Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine kon bi mu koy tàmbali tàmbali ko ci ak man ci ak bëgg la ko tàmbali ak jëfe ndigal ba yàlla dogal mu jóge ci loolu soppi am mbubb ci waneen melo ak waneen liggéey looloo taxoon nag mu féete ci Serigne Touba ci fànn googu nga xam ne lépp lu mës a am da ko daan buub ba lépp daje mu jëbbal ko sëriñ loolu yi tam moo waral bunt kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di ko tàmbalee ci Cheikh Mamadou Moustapha ba penc mii nga ne kër sa ñaal yu Fall Mbawar ba ca kër maam Saliou Fall kër gu ci nekk waxtu yi bu jotee yéene ja Cheikh Ibrahima Fall amoon ba takk boppam ak buum ci baatam jébbal ko sëriñ bi yéene joojee la ñuy feeñal ci ay jëf moo waral suñu daje mu mel ne Serigne Cheikh Fall Mbawar ku ci ràññeeku loolu la. waaw ràññeeku na ci ndax am liggéey boo xam ne daf koo tàmbali ci biir liggéey bi liñ aw dooñ ci biiru sas tàmbali gi mooy dafa daan def sax boo indee xar moo xam ne melul ni ko gënal da koy jéegal wala mu bàyyi ko ñaari at ba nga xam ne xar ma noppee naa màgg mu door ko yut ki fi nekkal Serigne Touba mel ne ab jotaayam mi ngi tàmbalee ci Cheikh Abdoul Ahad maa ngi fàttaliku tabaski goog bu ma sëñ Abdoul Ahad laajee ne ana bàyyi Fall bu ndaw daara ja lañ ma jël si njàpp ndal maa ngi fàttaliku tabaski googu bi ñu jébbalee bay dem Serigne Abdoul dafa dafa wax ne mboolem xar mu Serigne Cheikh Fall Mbaor indi nañ ko jaarale ci saal boobu ci biir kër Serigne tubaa muy bâtiment bi waa Daaru Salaam defar te sëñ Cheikh Anta doon ko yeesal ne li mu bëggoon mooy jur gi bëgg koo dégg lu ci nen na jaar ci moom mu gis ko keroog jaarale nañ gileem sax ci biir saal bi si Abdoulahad gis ko biñ noppee mu ne ko xam nga gis gi lu ma ci jublu woon mooy bu ëllëgee ci kanamu sëñ Touba ak Cheikh Ibra dama faa doon sa seede moo tax nag jëf jooju may seede sama bët daf cee war a tege yaag ñi nga bokk di ko jëf na nga xam ne daal bis boobee may seen seede ci kanamu Serigne Touba loolu bokk na ci innovation yi nga xam ne indi na ko ci ak yëkkati bi nga xam ne yëkkati na ko liggéey bi ba yóbbu ko foo xam ne fu kawel loolu day mottali rek yéene Cheikh Rafal jëm kon buum ci baatam mm-hmm. jébbal ko Serigne Touba ci jamono yi nga xam ne mi ngi ci daaraam di tarbiya ñu bari jàpp ne taalib yi rek ñoo koy dajale ñu gis ne ci liggéey bi gis nekk it li ñëpp ay donga lañ benn sëriñ yi fi nekk muy sëriñ bi moom nag ab sëriñam lay seeti waaye noonu sunub sëriñ a ngi nii loolu moo waral itam ku fi waaye mën a nekk foo mën a bokk moom bu sëriñ bi teewee ñëppi dongale kenn ku nekk jëf rek moo la ci war jërëjëf sëriñ mhm. waqiila in xadara yowmul baari wa duriba siraata fawqa naari wa kaabadal wara jawaawal xumma naadaa munaadin ayna ahlil xitmi dañoo bokk ci kuréel googu moo tax waxtu wu nekk faaw ñuy jóg <laughs> <laughs> rasulullah unabe sayyiduna ya rasulullah fal sallallahu unabe la ilaha illallah mu ne xolam set na guy mu ne waxtu ne mu ngi koy bége di ko gën a wettalikoo nee na jërëjëf Fall mu ne jërëjëf mu ne di dolli ko mbégte bu rëy mu ne seen taxawaay bii seen kàddu yu rafet yi mu ne ñoo ci dolli ak soñ suñu bopp di gën yeesal suñu jaayante di gën a fentali suñu laxasaay fa séene koo gën a ànd ak yéen mu ne jërëjëf Fall jërëjëf jëf jërëjëf na lool na ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal seen loxo. Bye. bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo